nekkul loo xam ne dof gu métti la ndax yow dof nga nee nga yaa ngi dégg yaa ngi lekk lu neex di naan lu neex di naan jus di yor weccet ba pare xale yu neex a neex neex a neex ñoo lay jëbbal seen bopp léegi yow kay maa yow fi mu doon li yaamata ne. yow amoo ko déedéet. waaw loolu wërsëg la wërsëg la di. ca doo woor. ay yaa topp ma dala ma léegi nag man damaa bëgg yàlla bañ maa topp dara ma dof. waaw kisi waya waya afa ma wusik waaw mooy mooy mooy yemul dégg nga mais yéen ni ni ni nga bëgg a mel waaw mais nga kaa ñaan yàlla yàlla benn saa di nga koy ñaanee vette mu may la bi la waaw ndax moom mooy mooy may lu ko neex yow ni nga xam nga yaa ma ñee waaw ma ñee nga ma trop ba bëgg ma waaw ngay ñaar pour mel ni ma waaw ma ngaa def comme man Ah. man na laa def ah, waa nga nekk daf yooyu di doolaate ñu leen wala ñu leen di pigil. mu leen di indi de bëgguma leen sax stress la ci bébé bi sama ëmb moom stress moom xanaa moo baax na baax na stress moom. garaawul leen gérer stress. ñun moom du fa dem moom. parce que ñun man ñoom ñooy sama stress te su ma xoolee rek xam ne mën naa wàccu te gis nga ni may waxee ñooy sax maa ngi stressé. stress <laughs> yéen Kajoor ah dama seen rongoñ fer na waaw waaw sunuy rongoñ fer na ndaxte nag dañ doon toppandoo di wëri ba Ndakaaru Cal Joob ngir am kër gu rafet dama la loolu jeex na fi tàkk tey ak EDM établissement Daaru Minan dama ni la sunuy rongoñ fer na ndaxte nag lépp lu jëm ci tabax waaw tabax ah kay da ngay samp sa kër kay ma wax la lépp luy matériel quincaillerie EDM établissement Touba Darou minan et frère andil nañ la bu baax la am ci walu plomberie nak mo fi ay matériel de toute nouvelle génération Manila electricien la électricien yi mom dañu fa sax abonné ndax li ci xéti lampe décoration dama ni duma la limal lépp lu jëm ci walum électricité EDM établissement Touba Darou kokan la ñu ne Serigne Diaby kokan la ñu ne borom sijaada bi grand marabout de la Casamance doté d'une dimension spirituelle très élevée même maa ko wax dafay di voyant hors pair Safara ay jafé jafé moma ci doy ay buntu yu tëju mo ci gaaw dafay fajj kurab japp mbaku seytaane sonal góor katan faiblesse sexuelle ou impuissance yeen ñi am jafé jafé ci sen biir yi sëy ngeen dàqalikoo nga bëgg retrouver sa ex mo xam muy góor mbaa jigéen yeen ñi jongante ngay passé concours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 Apple, Infinix, Huawei, Intel, Nokia accessoires en gros et en détail dañuy jaay aussi les lu xeetoo ak matériel électroménager une frigo congélateur ventilo woofer micro-ondes etc., etc. Alloir portable amen. alors 1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 de yeksina Digan gu bari na tange Mo weru mbekte weru yermane mo gën ci wéri Koro jàmm ak taw feex la di ñaan Alhamdulillah man maa ngi santaat bi ñu yàlla maye ñu dundu fekke waat Santaane yàlla ci suñu ngëneel Mel ko def ñu loolo ñu def ak yaram bi? Thank you. maa ngi tane ak kanam gu fasu loo fa jële mooy métti rek ah, dem naa daaw mais alhamdulilah j'avais plus de peur que de plus de peur que de waaw mooy maanaam ça daal xale bi kiiwul amul problème. waaw ah, wul am na fii sama kii yu parce que nee nañ ma ni force boobu. Ah, moo tax jigéen bu tollee ci ci ci ci biir ñu koy wax muy moytu yenn yi. waaw même même toogaay yenn kii yi sax. waaw stress tamit nee bu ma bu ma kenn merloo bu ma xiif bu ma defati benn liggéey. Ah. maanaam tout le temps naay kontaan di bég daal parce que noonu may kontaanee di bég. Hmm. xale bi tamit da koy yëg te après accouchement bi dafa yomb waaw man daa waruma di mer di stressé. ci koor gi doo stressé wu. stress mooy lan sax moom. moy ñu may teg ay nakar ah, sa jëkkër di doxaan nga diko ko yëg. genre oh, yooyu noonu fi imbécile yooyu nag. ah waaw xam nga lool tamit sa jëkkër di doxaan nga ëmb tamit lool mën nañ di fausse couche sax nak lool yi fi mbam la lool yi fi mbam la sa jëbër ëmb nga nekk ci mbedd mi di doxaan war a ne ci côté defal ko diko xol lu lu ko neex. diko ma diko fété waaw. nee na bu ma toggati. waaye yow xam nga lu mu doon raxas sax boo bëgg ñu defalal la yow kay togal rek ndem non la démé dem nga ci docteur bi ba mu wax la lii yow jàppal ni sa aaju faju na moom daal yaa ngi koy sentir daal. da nga koy sentir. waaw mu xaraam yi naroon maa indil problème. Hmm, di bu mbaxaateek yàq der ah di def yo xamanteni du n'importe quoi. kii sant la kii ati eh, sant wa. njay la njay jata njay njay njay njay wa may xana gor ge la japp nak ba nga ah, war fe meuna faté sama sante bi ni ah, kor gi de wa ku ne japp ko nak waxo li am jappante nak kor koor gi nag moom xaw naa eh, yamaa yóbbu sama kii. gis nga nak xolal sama wax du bari. deug la xam nga lutax tax. waaw tubaari dag ma defal lu reuy ki ci kaw ki ci kaw dang ko xam. gis nga. motax fim tol ni xolal xawmako waye da xolal fi ma taxaw ni gisoo sama gestu bu reuy bi hmm. xam nga dañoo ne ci réew moo xam ni looy def da koy def ci sutura ndax nit ñi doy nañu waat te dañuy loxmatu te dañuy wër wër ba ni la cric gis nga fi ma la indi tey bugguma nga ñëw kër ga yow xam nga ni binom dafa metti dafa bëri problème te nit nag bu ñëpp xamee foo jëm doo yegg ay mbaaye yaa gor mbaaye yaa baax mbaaye xanaa gisoo ma tey dama firi sama yaram bi fi mu toll dafa woyof toll nag jërëjëf ah kontaan naa de la gën a kontaan xam nga yaa ngi may remercier waaye yow mi dama lay delloo njukkal gi ndax ab fajkat ab médecin daanaka médecin lañ rek ndax dañuy dañuy dañuy faj képp ku ñu remercier rek ñun dañuy kontaan dan la koy delloo moo gën ku ñuy xarab yow nag euh, da ngaa neex a liggéeyal ndax yaare di nga liggéeyal doomu aadama waaye ñàkk confiance mooy tax yàlla du ko antal da mhm. fekk la koy defal day bax mhm. yow nak dama gis biñu ñu sumbee liggéey bi ba nima ma lay liggéeyal musoo maa xool beut bu bu tegginawul musoo mhm. ma xol beutu ñak a kóolite musoo betti dal nga lepp luma la def lo def nga ko motax yalla ñew ñëw te nag xam nga nan lay def suma fi joggé dina dem seen kër gis leen waxtaan ak ñoom pour ci nak non non déet xam nga daa commencé di ma teg stress xam nga. lii li stress la. ñoo xam ne bëgguñu ma bëgguma leen a gis man su ma xoolee sama sama sama xol bi day metti sama estomac bi mën naa ci sax wàccu man ñoo dina gis rek daf may indil ay vomissement nga bëgg faa dem loo fay def. waaw yow stress moom daa am signification yu bëri wala. déedéet. stress. waaw mais yow des fois nit du la teg stress. man ñooñu dañ may teg stress dañ leen ma mën ngaa toog bañ a wàccu mais am na ñoo xam ne suñu la neexul soo leen xoolee rek mën nga am ay wàccu mooy di ëmb di wàccu di jafte ah. su ma leen jaftee indi leen fi nag ah. ami volaay moom man dëgg yàlla man fekku sekkuma ñoom dara stress la bokk waaw léegi nag dootuñu la teg stress xam nga nu ñuy def yow nangul ma li ma la wax bàyyi ma dem seen kër ndax jàmm laa fay wuti damay dem wax ak ñoom ne la nañ la bàyyi tout tranquillement suñu diggante ak ñoom ratax ba mel ni laalu mbépp bu ko jaree sax nag dama leen di invité fii woo mbaay ñu toog waxtaan na waaw léegi nag beneen stress a ngi nii nag yaa ngi nii nag xoolal xale bi sax mi ngi fuddatu ci biir parce que li ah, waa nag waa ah, nag waa waa nag déet déet déet stress bëgg naa xam signification bi benn yoon stress bëgg naa xam signification bi benn yoon dama ci dimbali manam kat ah ni yow yam ko conteneur di conteneur bu dem beneen ñew ah da ngay doon benen conteneur. do, do, do, bu ko wax bala ci kenn laal nañ ma may ma laal ba paré bala ci kenn laal dañ ma may ma laal ba paré ah ma ngi ni di ñew yaangi sa place gën tàppee ma ngi ni di ñew ma ngi ni di ñëw may ma may ma kay maa ngi nii di ñëw. mooy laa am na dëkk tey daf kay kay boo xam am na si xool si waay doon ni gis ma sax nii nii ba du tëf ma lii damaa woon dem ci avion dem kay ki ni ma gis tey lay la ca kay ki nag tey bés à partir tey sama dugati buntu gi sama ñor gi laa naan tefet dërëm di ci dig. fii bële. wolof neena denkaane dénkaane ka nga wolu foo ma fekkon ba may fekk dama laa woo ki nga xam tane mo la fekk fu lëndëm meuna genn la fa da nga am fayam dama ne da nga def lu reuy wax ji nag du yàgg xoolal mbaay dañu ne ci réew mu doy waar li ma la ko weexal xeb li bari na di danañ ci wat bu soba yalla li bari na di jërëjëf ah. jërëjëf mbaay xaaral lo gis rek dafa am yoon del teel lii teel gis nga fi lii nga gis denc ko bu baax ngëlëb këpp la bëgg ngëlëb ngëlëb këpp la tudd kii mooy ngëlëb këpp ngëlëb këpp ngëlëb këpp yow sama jinne dafa am jinne jula ci sopp éhéhé jinne ji naan éhéhé seen seen seen papa la éhéhé moo la bëgg nee na ma boo demee éhéhé moo ma woo ma mbaay mën a ko ah, ne boo demee nel yaasin maa ko soppal sama bopp kii éhéhé moo la ko jox da ngaa wor. maa wor waa ah loolu de moo ma ci jaxal ndax vitel bi da ngay dettatiku. loolu. dangay ngay da ngay dettatiku boo koy diwoo da ngay dettatiku. dettatiku moom. vitel kii dettati la. luy loolu lu muy signifié moom. da ngay da ngay da ngay da ngay da ngay da da ngay sumee ko ba da ngay kësungu xam nga kësungu. yaa ngi may gën a rayati di. da ngay këflu. këflu mooy lan. këflu da ngay jël as morceau su ndaw rek. laa laa fa ko jiital ko rek sa yaram yëpp dégg nga maam xam nga yaa ma gën a xam bëgg damaa woon bëgg maa expliqué moo tax ma ne naa a vocal. bu ko defee déetati ko lay tudd. da ngay diw rek. comme laalooy mbépp. képp ku la laal. Ah. bul ku la jege sax barastiku. kenn dootu la téye. billaay wala ak sama koor gi. Ah. jinne ji ah. dinaa la yónneewaat <laughs> exexee exexee jaa nee ko dinaa la waat ngir moom rek ndax man ku ma sàmm rek laa bëgg yàllaa fi na rek waaye wéeru waaye am na solo mbaaye maa ngay daw maa ngay daw jërëjëf mbaaye yàlla na doxal gaaw doxal gaaw <laughs> waay mooy ndeysaan dinaa ma sa wax ak moom nag ndeysaan yaay faal la nag nag yaay faal la nag ak ñuulaay eben la ginaaw gi da baax na waaw ah, waaw ginnaaw gi de moom baax na moom na ay waay benn ñaar ñett ñeent gu ne mu am fa ñaar <laughs> man na gis nga foog ma commencé nag def ay live dugg ci net bi xol ku ma sama google ma jongante xale ndax nag ma ngi def muy bax sama client ñew ñëw Océ rek nak li gars nan naan Océ ay ala yàlla jàppale oh day ba ya Assalamu alaykum alaykum ye Assalamu alaykum alaykum ah nit ki dal boko ko xoolee neexu la eh, am nga stress wa ba pare ma neexul su ma umbee la damay wàcc mu leen di indi de bugguma leen nooñ dama. ah déet déet déet déet déet déet. jooyi sax stress la ci bébé bi bii nan naa métti trop. stress moom stress moom kon xanaa moo gën a bon ci feebar yi de. Ah, baax na baax na waaw stress moom garaawul. nan gérer stress. ñooñu moom bu fa dem moom. parce que ñooñu man su ñoom ñooy samay stress te su ma leen xoolee rek xam ne mën naa wàccu te gis nga ni nga may waxee ñooñu sax maa ngi stressé. stress ah stress xool nit ki bañ ko stress wax lu la neexul stress xool loo bëggul gis stress ci koor gi ñàkk waxtaan stress lépp ci stress. waaye yéen stress mooy lan ñaata signification la am war dañ ko waxtaane rek. saa yi caxa. du nit. du bien ah. du du. yaa ah, bële li li li li li ma li xaaral ma déglu fi diggante. waaw damay yéeg dem aéroport jë jë avion dem. maanaam kon daal yow yëf yi fi mu doon nii daal tuuti impact.

mais kooku gën a ne. Mbaye mooy borom jinne yi. mais kooku kay kooku kay daa ngi ñaanal équipe équipe nationale bu ñu jokk demande bi. non moom nag du fara di ñaan ci football ak yooyu. mais moom na cee jàpp de. moom na cee jàpp de. si mais pàcc pàcc gars yi nekk ñi ñaar bi nii bàyyi na ñoo xamante ni ñaanu daal dañoo dëgg fit rek. non dëgg la mais moom xam nga ay jinneem ñoo koy orienté. di ko wax fi muy jaar rek fi mu dul jaar. jinne ko may ko ndigal pour mu mën a ñaanal équipe nationale. waaw may ndigal na ndax mu jàpp ci affaire yi gars yi gars yi gars jël coupe continental bi ci ujjee yëpp ka Pakaw loolu ma mais kontaan naa euh, hmm. euh. ah. waaw waaw ci que xaalis nag mooy dëgëral yëf yi. parce que keroog xoolal xoolal xoolal xoolal ma nante laa. bëggoon naa laaj benn affaire tamit. maanaam xam nga yow sa dof gi yàlla dogal ne naqari wut wax dëgg yàlla léegi ku euh, di déformé wu nekk daf comme yow comme nu muy def. <laughs> nga def def waaw pour yéen waxuma pour ma mel comme yow daal xam nga man fi mu doon yow nee nga def nga mais daanaka tënewu ma la man ma bu fekkee dañuy inscrire rek yooyu ma dugg ci. <laughs> mais li nekk association. ma maam lii yaa moo koy tegaate ba leen loolu maam ma nii yaa du ko xëy lépp. Ah. ma waaye am naa wërsëg. Ah. maa ngi nii yow ah. ma maa lay fay. te wélu ma. waaw man dama laa ñëw xaaral xaaral rek xaaral rek xaaral. maa ngi lay maa ngi lay lan moo tax nga bëgg nekk def. Euh, xam nga tey euh, ñànku wax dëgg yàlla sa dof gi nekkul loo xam ne dof gu métti la ndax yow dof nga nee nga yaa ngi dégg yaa ngi lekk lu neex di naan lu neex di naan jus di yor weccet ba pare xale yu neex a neex neex a neex ñoo lay jëbbal seen bopp léegi yow kay maa yow <laughs> fi mu doon nii yaa ma tane. yow amoo ko déedéet. la wërsëg la di. ca doo woor. ci ay yaa topp ma ma da waaw léegi nag man bëgg yàlla bañ maa topp dara ma dof waaw léegi nag gis nga su ma defee affaire maa wësëg waaw mooy mooy mooy mel waaw mel kaa ñaan yàlla nga koy ñaanee vett mu may la bila waaw lu ko neex hmm. yow ni nga xam nga yaa ma ñee waaw ñee ma ñee nga ma trop mel ni ma ma ngaa ñaar bu bëgg a man yàlla doo def comme man man na laa def ah, waa nga nekk dof yooyu di dóolaate ñu leen wala ñu leen pigil mais dof yi bokk waa xale dafa day day dégg day dégul waa waa dégul maa am na fi am ñu ñuy dóolaate ci mbedd ñu leen pigil waaw waa dégul daa déglu ma maa ngi laajte. mais maa li sama domaine la. acca acca fekk yaay wax. acca acca mais ñoo ñu leen pikil. ala ñoo xam fu fañ tooy juguñ fa. Mhm. yow maa ngaa ñaan sax mu nekk def yàlla du la may ni nga nekk def xam nu mu ah. nga nekk xal mu jigéen. lan ay xale yu ndaw di tëb. bàyyi leen bàyyi leen nit ñu mel nga di kañee dégg nga. mais loolu dëgg tax ci bërëb nga may xar mu jigéen. te nag xam nga lay def nag sax da nga ko mu gisee nga def def dinaa xam ne bokkoo si dama. dama ci sëriñ gi loo yow loolu dëgg tax ci bërëb. waaw xool pëlëm oole ci yam yama ci së yama ci sëriñ gi rek yam leen rek loolu mu ngi baax kay tée leen loolu rek tée leen loolu rek loolu baax na jowe ngeen ci yokkaat leneen nit yàlla ne lay maye wërsëg nga xam ko di di di yottaat leneen loo xam ne jotoo boo nekkee bu fekkee da boo defee dee nag